morso morso boobu ngay dégg. jërëjëf. jërëjëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu. yaa ngi ci ak contentement bu mag ñëw biir fii ci jàmm ak dégg fi doomu jàmm ak si Gambaaw changement alimentaire muy secteur. mbokk yi bés bi li ko waral mooy ñu jëm ci bis bu mag. ñu ngi le 6 novembre ñu ànd ci waa Jàmbaar production. la demee waaw ak presse bi yëpp ñu ngi leen a baax Lamine Saloum tey gën mel gis nga fan si tey ni mu def Amadou Bamba Xaadimu Rasuul di sant sama sëriñ sëriñ sëriñ Mbacke Alxuraan Mbacke Balaye sa moom lay siyaar di la bëggee lay def sa waaj waaj la wax ne ñun ñun sa ginnaaw Mbacke Mbacke wax nit ñi gën a bëri ñu gën a waaw la ngi xaar beneen ba ngay waxaat mooy Bikkum soyam na ko mbaa fa ne kay. Ko xaduna an ñoo joor jëm waar xoyaago amu de jinda bo mi andoonanga xani ta ref o i mi xooya den i ngara sikan no combat fene ke yaam combat fene ke combat sereer a ref i a jarana mu ñifo le i kon nu ba kino waana ten rek fodo fi jege naa leen di jege tarkindaay jaamu gën man fii mooy sama xol fii mooy sama xol oxol presi xam naa ne mënul yegg xam naa ne mënul xaj fii mais man fii mooy sama base fii mooy sama xol fii mooy sama jamaa parce que alxuraan fii jaamu gën ku leen bëgg rek ma bëgg la parce que Serigne Bam muusu jaamu gën wala xaj jaamu gën sax ku leen bëgg ma xol la parce que man seera faa ah une semaine. voilà voilà voilà. waaw li may yëg léegi donc la taw feeg bu dëkkee. am jaamu ju bëri samay supporter leen wax ne damay delloo seen xel leen wax ne làng bi dama koy jooy benn jooy. benn jooy laa koy jooy amuñu ni loolu da nga def xarit bu ñu taal wala kooku ñu dégg na dégg na ngeen xool wala kooku mu wax la ko amul dara wax la ko fii. Come on in. si ginnaaw si te mbooloo bi xale yu ndaw yi bàyyi seen fukki dërëm si ñu ñàkk lépp di ko dajale ndax yow mbooloo bi nekk si ginnaaw. mbooloo bi mooy tax ma rey sa mbaqan ñu ñu mu gën a sa mbaqan bi parce que maa ngi sant. waaye bu ma sama mbaqan bi kese bu ma sama mbaqan kese kon mu dem États-Unis doo foofu dégg nga mais ñii ñii seen loxo jàpp seen ginnaaw. ñii ñooy nekk ndaw yi nga xamante ne ñoo ëpp xel ñii ñooy ndaw yi ñoo dàq jàng ñii